na ma naas dama war yokk waaw gaa yi nekk ci internet bi gaa yi dëkk leen micro yi ñu ragal ci naan wéy dinañ ko raay dinañ ko <laughs> dinañ ko raay dinañ ko nangam toog fuñ toog di dul rek naan dinañ ko yooyu baax na tam ay menaces la yoo xam ni waaw voilà dina tax ñun ñuy ñuy profité di di dund bu baax waaw menaces yoo xam ne mu Sénégal la yamu ko woon boo ñëwee fii ba mu ba mu noq leen di ngeen xam lan ngay menacé maam Mor maam Mor Mbaay géwéloo Mbaay maam Mbaay biiralkat bi maa ngi sa maa ngi sa dossier ñëw maam Mbaay biiralkat bi voilà xam nga ki nga biiral noonu ngénte ga ak xar ga nga jëndoon lépp yooyu yor nañ sa dossier maam Mor Mbaay duulkat boobu nga xam maçon la woon maçon maçon simple maçon wallaay la azim simple maçon jàngul mënul sax bind turam maam Mor Mbaay xaw ma maam Mor Mbaay xaw ma ko géwéloo Mbaay maam Mor Mbaay Mbaay laa wax de yi ay jàmbaar lañ mais am na nitu gàcce yoo xam ne ñoo gàcceel xeet yépp maam Mor Mbaay ci la bokk imbécile boo xam ne nalaw ak doxal rek lay def liggéeyam di wër naan def sol ñett garam boobu yu forox toll toll toll toll xasaw xun maam Mor Mbaay mi ngi nii xool leen kër gi maam Mor Mbaay ci tëdd muy dox mu tabaxal ko seen waa kër maam moor mbaay kii du bàyyi de kii noq ko rek ko koy taxa a bàyyi xool leen kër gi mu tabaxal seen waa kër ci taxawaalu xool leen maam Mor ci taxawaalu kër gi mu tabaxal seen waa kër xool leen gis ngeen kër la nekk moom la tabaxal seen waa kër moom maam Mor Mbaye xaar ma def nii wan leen ko maam Mor Mbaye taxawaalu kat wëndaalu kat xool leen kër gi mu tabaxal seen waa kër caaroy ay waaye ndaw toog muy dox saw muy dox tëdd muy dox doxut muy dox di day muy dox ñii dañ mi ngi nii de Sénégal dëkk dëkk boobu dëkk boobu bu leen juróom yërëm leen xool leen maam Mor Mbaye lu mu tabaxal lu mu tabaxal seen waa dëkk ku la gën a ñàkk jom rek ñu ne ci ngéwél ga la bàyyeekoo ku la gën a ñàkk jom du ñëpp nag du ñëpp de géwél am na jàmbaar mais ñàkk ñu gën a ñàkk jom Afrique ci géwél ga lañ bàyyeekoo man affaire bi jaaxal na ma mais nag teewul am na ay ñu am jom nag ñu am ful la ñu am fayda dëgg-dëgg nag nañ ko wax rek mais ñu ñàkk jom jigéene da bëri na ñuy génnee foofu waaw voilà maam Mor Mbaye ay dunq dunq dunq dunq ñu ñuy génnee ca ngéwél ga gi dunq yi kenn xamul lu ñu day voilà ñàkk nañ jom ñàkk nañ fulla ñàkk nañ fayda gàccal lañ bépp jàmbaar bépp géwél géwél géwél jàmbaar la woon ci xare mais seen doom yi yenn doom yi imbécile yi maam Mor Mbaye donc xaw ma lan nag lu si xaw ma lan lu tëdd mbay peex xaarim sàmb xaarim sàmb yow tamit yal bi ngay doxaan hmm? na <laughs> xam nañ ko tamit mais Pikine Pikine ah xaarim sàmb Pikine yal ba nga fay doxaan ah coro ah coro ah, moom la tudd ah yow yor nañ say dossier maam Mor Mbaye yor nañ say dossier nag biiralkat bi dem nañ ba jël seen kër famille jël nañ photo ba ah mi ngi nii seen kër famille yi nii lii nga tabax R plus 2 ci toog muy dox xaj yi dee di joxe seen i seen addiye nga yanu ko dem defar ci seen kër toog muy dox tekkiwoo dara mënoo bind sax sa tur ma xa ñëpp ne document bi ñu ma jox nee nañ ma yow jàngoo xam nga nooy def ay kaset ngay déglu ak yomb déglu ay kaset këru ko. wër ndaalu Touba naan da nga Serigne Touba boo jëloon ca géej waaw lu mu bind Masambaay Maas laay laay laa gars yi di la jox <laughs> ñoo xam ne seen gars yi baaxul di la jox lii nga tabax nga ñëw xoolal si ñoom seen ndey ñi ñi def loolu seen ndey seen kër yi ñu ngi daanu. ña ña lay jox noonu ñoo ah, ñooñu di la jox addiyee ngay fen di déglu kaset kaset yi ay kaset yi ngay déglu di déglu nag jàngoo mënoo bind sa tur da ngay déglu ay kaset déglu kóoru jàngul nag mais boobu dafa baax ci mën a fen ngay déglu déglu déglu déglu génn. wëndaalu Touba toog waaw ma ma mbaay bind ah ma sàmbaay maas la laa Serigne Touba julli na ca géej ga sëgg siggi takk suuf laay laa lépp ci kaset yi la koy dégloo ah addiyee di yax du Serigne du dara baay ji du Serigne yaay ji du Serigne xeetoowul Serigne xamul sax luy Serigne jàngut jàngul alxuraan jàngul français munul bind turam nii mu dem tabax moom <laughs> toog muy dox mu dem tabaxal seen baay kër tabax seen kër seen kër muy ni kii kii bu ñëwoon fii tey tey tey dañ ko tëj ci kaso yi ku dem ba tabaxal sa baay kër gu day nii ci koo xam ne liggéeyoo goro yettoo liggéeyoo goro yettoo nga tabaxal seen waa kër gi seen kër famille nga tabax fa lii R plus <laughs> waaye dëkk bi baaxul waaye Sénégal moo tax jàng baaxul Sénégal bàyyi leen jàngi bàyyi leen jàngi dem dem leen def yu yomb toog muy dox dem leen toog déglu ay kase këru gars yi dafa am benn affaire boo xam moom lañ ñëpp gëm ñun ñii ñëpp moom lañ gëm mooy dem fen dem dajale ay affaire ñëw fen yokk ci affaire dolli dolli cere yokk ñeex kese dal kàcc rek Serigne Touba laay laay la laa ba mu daje góor ga góor ga ne ko eh salaamaaleykum mu ne ko maaleykum salaam ne xaas xiis rek góor ga daanu xam mu sotti ko ndox góor ga jóg laay laay la laa góor ga kii gaañ ne laa laay laay génne leen waay te kooku day fen kàcc kase day fen di fenal sëñ bi di fen loolu lañ gars yi loolu la ñuy liggéeyee foofu ñoom maam Mor Mbaye ak moromam géwéloo Mbaye loolu la ñuy liggéey dañuy taxawaalu di fenal sëñ bi di sosal sëñ bi yóbbu sëñ bi fu mu musul teg tànk yóbbu sëñ bi fu mu demul yóbbu sëñ bi lu mu waxut sëñ bi nga xam ne dundam yépp da koo liggéey liggéeyal si yàlla dundam yépp da koo liggéeyal yàlla fenkat yi nga xam ne ku la daq fen a ngi nii ñoom moom la ñuy moom la ñuy amee xaalis moom la ñuy tabaxee seen kër yi moom la ñuy joxee seen waajur yi moom la ñuy seen famille yi ci fen ci kàcc ci sosal sëñ bi kese kese jeex na nii daal ku la dàq fen nga ne ma kii la ku la dàq fen moo ëpp addiya di fenal sëñ bi rek benn góor nee na ma ca ginnaaw uh, ndimbi kokki ndimbi kokki benn góor nee na ma benn góor ñoom noonu la ñuy la ñuy formé jaar-jaaru sëñ bi ci benn góor nee na ma góor googu kenn xamul kan la benn góor nee na ma ci nimbi kokki sëñ bi ba mu fa ñëwee mu may ko ndox sëñ bi naan ñaari góor tegal ko na ko sëggal mu sëgg mu siggi mu gis ay milliards ci poche bi gaa ne jël nañ sëñ bi def ko luxuskat jël nañ sëñ bi def ko njabarkat ñoom daal fen rek fen rek ñoom Mamour Mbaye fen rek jël nañ sëñ bi def ko luxuskat def nañ ko fenn des fois ñu def ko njabarkat des fois ñu def ko dóorkat des fois ñu def ko magicien mu def ñoom lu leen neex la ñuy def sëñ bi lu leen neex la ñuy def sëñ bi gars yi di mbëkk di jox ah, am am am am <laughs> ñoom loolu la ñuy dundee waa ñoom jàpp sëñ bi sëñ sëriñ lu day ni sëriñ Tuubaa billahi ak lu mu day ñu koy foowee Maam Mor Mbaye mënul bind turam barke alxuraan du français du arab jàngut jàngut biiralkat la seen koñ biiral na fa sëriñ Maam Mor xo Sénégal nag dañoo gaaw ci sëriñ tam ñu yokk la sëriñ de say ñetti garam bu ngay sol yu xasaw xunn fees dale ki mbuur ak ay matt nga ñëw ne nii rek ñu ne sëriñ ba sëriñ ba ñoom sëriñ <laughs> kooku munul jàng ku munul bind turam te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dañ doon ñëw naan Muhammad nee na gars yi ne la kan moo ko wax ñu ne xaddis bi ñu koy remonté di ko remonté di ko remonté ba ne xaddis bi kii moo ko soloo ñu ne lii itam identiqueul parce que kii fenkat la kii kàcckat la kii soskat la mus naa def tel tel tel ñu ne lii identiqueul lu tax identiqueul parce que kii mus nañ koo dégg mu fen mus nañ koo dégg mu wax lu dul dëgg moo tax ñu naan ay xaddis yu identique xaddis yu identiqueul kon du n'importe kii la ñuy génne ay xaddis wala n'importe kii mooy wax ay xaddis ñu ne lii c'est identique déedéet dañuy xool traçabilité ligne linéaire bi kii fan la jaar kan moo ko génne kan moo ko wax loolu moo tax ñu naan bii c'est authentique bii c'est pas authentique mais Serigne maam maam Mor Mbaye maam Mor Mbaye mii dóorkat la biiralkat la tamit biiral na koñam doomu Pape njaay commando dem leen nga laaj Pape Ndiaye commando benn paa la Pape Pape Ndiaye commando pa Paa Ndiaye commando doomam Serigne maam Mor Mbaye ko biiral maam Mor Mbaye moo biiral mii moo biiral doomu Pape Ndiaye commando paa Ndiaye commando nag Caaroy la nekk waaw waaw <laughs> Pape Ndiaye commando Caaroy la nekk dem leen Caaroy ngeen ma Mbour Mbaay biiral la fa biiral la fa doomu jàmbur biiral tëddee rek lay def càgg bu bon a ngi noonu càgg bu bon a bon a bon lu sëriñ mënul bind tiram amul xam-xam day déglu day déglu kase kase di di këru kase di di ñëw di duul di tegale di teg kase kase ku sa nday liggéeyul rek yaa daan maam Mor Mbaye maam Mor Mbaye tekkiwul dara fenkat bu mag la dóorkat la tëdd muy dox la sawkatu lal la maam Mor du duuli muus gàtt di ko yor naa nag sa dossier caaroy gaar daan mooy sa turu nawetaan Ramadaan sa dossier tey moom aw sa jot sa dossier laa yor hey lijjanti sa doom ba nga biiral <laughs> ma jaar ci turam moom jigéen bi dama koy sàmm doomu Baye Fall ba nga biiral doomam ja njaay njaay njaay commando pa njaay commando ca caaro yi biiral nga doomam ja demal nga lijjanti sa doom ja xaj bu dee bi bandi salte bi caga bordel bi yéen ñëpp laay kalaate yéen ñëpp bandi salte yeeg taxawaalukat yeeg wëndaalukat yi sawkatul lal yi toog muy dox yi kutumbaasaan yi lépp dinaa leen futti bañ set wecc ma tegal leen askan wi ku leen topp xaj nga ku leen topp sa baay xaj la ku leen topp sa yaay xaj la du ñu sëriñ tey du ñu sëriñ ëllëg jànguñu mënuñu liir ay analphabète lañ ay imbécile lañu agresseur lañu maam moo maam Mor Mbaay maam moor Mbaay parce que man du leen ñoom ma leen woyee sëriñ maam Mor Mbaay bu gat noonu keneen ki tamit noonu la mel lu mu tuddati am na keneen ka sax keneen ka tam bi wër plateau di kàcc rek te am na keneen comme ma fi waxoon temps yii passé xam nga <laughs> man moom la ma ragal wax toog fay jooy waxoon naa ko fan yële lu mu tuddati sax ba ba sëriñ bi laa ci bugg a yokk xaw ma sëriñ lan parce que ñoom dañoo gaaw ci sëriñ ñoom voilà maam moor duur kat ma naan maam moor sëriñ kii fii nag moom boo boo duggee ci man dinaa ñuus sa maam maam Mor Mbaay <laughs> géwéloo Mbaay biiralkat bi boo duggee ci man rek ma ñuus sa maam ba nga saw sa law xaj bu dee bi gànna neefere voilà mi ngi noonu gànna neefere gànna neefere tam noonu la mel xaadim sàmm gànna neefere gànna neefere ku mun a duul la ku mun a fen la gànna neefere moom it noonu day wër di taxawal rek gànna neefere ak mun a duul sëñ bi nee ba ba ñu yokk ci sëriñ Gana Néféré kañ la doon sëriñ kooku sëriñ kan moo ban sëriñ la fu mu bàyyee ko kan mooy maamam kan mooy maamaati maamam Gana Néféré di taxawaalukat ay neefere rek lay def day duur rek sëñ ba benn paa nee na ma ca ca ca ca Dakar ga benn paa nee na ma ca Dakar ga sëriñ bi moom bu ma bu mu jógee bu mu jullee ba pare dafa jóg. bu mu jógee laay lay la laa ngay na lan la ah sëñ bi dafa xuus xuusaat ndox ma wàcc mu mu tëb ndox ma taxaw bu mu taxawee géej ga taxaw mu naan géej ga xar géej ga jox ci sëñ ma ku mun a fen neefere gànna neefere du ma ne mukk sëriñ man moom sëriñ dama dama jox tër sëriñ sëriñ mu du ñoom gànna neefere du sëriñ jegewut sëriñ xamut lu sëriñ munul bind turam xamut dara ci ñaq tëdd muy dox ci tëdd muy dox yi la toog muy dox saw salal muy dox tëdd saw salal muy dox jaaxaan di caaxaan saw salal muy dox gànna neefere ci la bokk maam Mor Mbaay ci la bokk ay duurkat lañ fenkat yu mag lañu duñu ñu sëriñ jegewuñu sëriñ jegewuñu lu nuróob sëriñ dañuy fen dañuy kàcc dañuy kàcc yéen ñëpp dina leen futt ba ngeen set delloo lañ ci seen pooju nday yi fenkat yi ngeen doon xaju dee yooyu dafay jeex de révolution bi lépp lañuy ñuy changé gànna neefere waaw gànna neefere duur rekk lay def moo dàq déglu kaset di di récité da ñoom ñëpp dañuy déglu sëriñ Sambay mooy moo moo ne woon jàmbaar ja sëriñ Sambay jàng na français jàng na alxuraan ku am xam-xam la sëriñ Sambay doomu sëriñ Saalu Mbàkke yi doomu sëriñ Murtaba yi doomu sëriñ ñooñu dañoo jàng alxuraan dañoo xam dañoo xam ñi ngay gis ñii yëpp gànna neefere géwéloo mbaay fen rek <laughs> maam Mor Mbaay fen rek ay biiralkat lañ irul tous rek ñoom ñëpp dañ ay aso ay casserole ñu ngi seen ginnaaw du ñuy gat dina du ñuy théoricien du ñuy historien fenkat yu mag lañu fenkat fenkat yu mag a ngi noonu ñoom la ñuy def kenn dàquñu ko mënoon nañ ko dem jël ay kaset dem déglu ay kaset këru kaset ya ñëw di kàcc di fenal sëñ bi sëñ bi nag day na loo xam ni ku ko fenal ñu ñu noq samaam ku ko fenal ñu ñuur samaam ku ko fenal ku ko fenal rek ku sàkkal sëñ bi ay sikki sàkk wala nga koy fenal comme ñun ñoom maam moor Mbaay wala ay ñoom gànna nefere dina ñuur sa maam ngay leer dañoo ñëw pour révolutionner tout tout bàyyiwuñ dara kon nag gànna nefere nu ñuur sa xaj Mbaay yow mii dem biiral doomu <laughs> Panjaay commando ca caaro yi lijjantee sa doom jooju xaj bu dee bi fexe nga ba tabaxal sa sa seen waa kër kër ci duul ñoom di agressé yoo xam nga ni boo demee bay agressé booy agressé euh, lu mu tuddati Assane Diouf dafa fekk rek sincèrement nga nekk nga nekk Sénégal yéen Sénégal ngeen di lëmbe ak tamit Sénégal ngeen di lëmbe ci nguuru Macky Sall barki Seydina Mohamed 2024 ñu tëbal nguuru Macky Sall di ngeen def cocc di ngeen def cocc dinañ leen yar billahi wallahi wa taala nguuru Macky Sall bu jeexee waaw mag Macky Sall bu jeexee di ngeen xam ni tekkiwu leen dara di ngeen gis booy bu ndaw bu leen saw di saw seen kaw te boo leen waxee ñu noq leen boo leen waxee ñu ñuus leen ba ngeen plombé billahi walla seen nguur tey jeex de seen nguur day jeex léegi dans moins deux ans seen nguur jeex balaa maa dee biddo xaraam yi ñenn ñenn taxawaalu kat yi biiral kat la taxawaalu kat la hmm? te pourtant maam moo Mbaye marié la de bu muy marié dafa marié ba dem biiral doomu Panjaay commando ba te ne te jëwriñ la de <laughs> jëwriñ la jëwriñ jëwriñ waaw ah, jëwriñ nag moom man sax jëwriñ laa man man sama koñ am nañ daara sa daara sëriñ tubaa man nekk naa fa jëwriñ nekk naa fa jëwriñ ba bu mu fay jógee jëwriñ laa daara jooju ñun ñoo ko teg ak Serigne Khadim Mbacke waaw Serigne Khadim Mbacke doomu kii Mbacke bu bu bu daaru salaam Euh, doo doomu euh, foog na doomu surtout euh, sëriñ kii kii Mbàkke Anta Mbàkke sëriñ Cheikh Anta Mbàkke bu Daaru Salaam sëriñ Xaadim Mbàkke jóge Touba ñëw ñu samp ñu samp daara ca bustaan daara dañu samp daara sëriñ Touba dajale jeunes yi bon dama cee bokk jëwriñ lañ ma defoon maay joon jëwriñ ba ba nii nii nii maay jëwriñ kaaw bi jëwriñ kon jëwriñ moom <laughs> ku neex ne mën ngaa doon jëwriñ laaj leen ma ba ma demee euh, fële mooy moment ba ma ba ma joxe woon addiya ba euh, kii lu mu si ndem si yàlla si Cheikh Béthio Thioune ndeysaan yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana loolu sax dañ ci am problème danga naan yàlla ku de ku faatu nga ne yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana ñu ne non bu ko ñaanee yàlla ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana neel rek yàlla na yàlla yokk leeram <laughs> yéen ñii bir ne ñi yow ngeen fam ni am nañu wér yow si réew mi nit ki làqu ñu ne yàlla na ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana ay taxaw naa non yàlla <laughs> bu ko yàlla ko yàlla yërëm neel rek yàlla na yàlla yokk leeram am nañu wérut Sénégal daa ay dof dafa bëri ñu feebar dafa bëri ñu feebar yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ba ma demee ca cant la ba ma demee màggal ga ma wàcc toog jël sama cinq mille francs wecceeku ko ñu wecc ma ñaari deux mille ak benn mille francs ma dem jox mille francs yi Cheikh Béthio Thioune mu dese ma deux mille francs ma dem jumaa ja ñu tafu ma ñaari ñaari kii deux mille billet deux mille francs yi ma delluwaat ca Cheikh ba guddi fekk gaa yëpp rang ma rang gaa yi sukkuraam ma sukkuraam ba ci moom ñëw ba ci Cheikh bi gars di ko jox muy kott di teg di ko jox muy boxol di teg ma ñëw ne nuyu nii mu foog ne damay teg ma ne ko nii xëcc loxo bi mu ne nii ma ne ko cinq mille laa fi indi ne ma ah, ma ne ko <laughs> waaw waaw ma ne ko mille francs yi dama koo tojoon cinq mille dama ko tojoon ñaari deux mille ak benn mille gars yi ngi ginnaaw de di ne ma ah, ma ne ko waaw mille yi nag dama la ko jox deux mille ya ñaari deux mille yi quatre mille yi damaa dugg ca jumaa ja ñu tafuma <laughs> ma ne ko waaw te aw ma paas maanaam tey jii bu ma ta bu ma toju woon sama cinq mille jox la mille kon sama quatre mille kenn du ko tafu waaye comme <laughs> damaa ñëw jox la mille quatre deux quatre mille ñaari deux mille ñu tafu ko fu mu nekk nii rek damaa bëgg a ñibbi kaw la te fukki dërëm yoruma ko fukki dërëm xam nga te fukki dërëm mu ne moom waaw waaw waaw eh, waaw jëriñ kii jëriñ xaw ma la joxal ma ko foofu loolu joxal ma ko foofu eh, junni. <laughs> waa ji toog di waxtaan ak grand boobu xam nga dañu mën a dóor. toog ak garab boobu keneen waaw ma ma pousse gars yi continuer di di raam di di di di raam di joxe ma pousse toog à côté ne ko waaye sa toog di ko xaar waa ji dafa ma ne ko sa waay xaar de ma ne sa waay dafa ma manqué dafa ma manqué ma ne ko mënu ma la def ndànk sëñ bi nee na nga jox ma sama 5000 sama 5000 laa bëggoon nga jox delloo ma ko waaye sa waay da ko def ndànk yow defal ndànk bàyyi. waaye Baay Faal dafa ndànk ma ne ko sa waay bul ci xuloo moomoo dara moomoo ko sëñ bi nee na nga jox ma 5000 jox ma 5000 ma ñibbi yow moomoo sa ndey liggéeyul sa baay liggéeyul kenn raamalul sa baay kii la ñuy raamal kii lañ jox maa ko raamaloon tey suba jox ko jox ko 1000 francs ñàkk sa bopp 4000 francs dama la bëgg ngeen delloo ma sama 5000 francs ma ñibbi jàmm na ñooy guddi waa ji toog foofu oh waay nit ñi ak mooy seen xaalis bi ñuy dugal si garam bi dóorkat yi génn bépp cinq mille ne ma ne ñàkk jom ñëpp di raam di jox sëñ bi ngay ñëw di jël ci sëñ bi ma ne ko sëñ bi moo ñu fi nekkal àdduna ak àllaaxira ku jom mi boo ñëwee ci moom daf la war a génne sama cinq mille laa jël si ñàkk jom ñëpp di jox sëñ bi ngay ngay ngay laaj sëñ bi naan dugal lu ci des naan ni dugal li ci des ma ne ko maay laaj señ bi maay laaj señ bi man munumaa dox Touba ba Kaolack yoroo ma fukki dërëm sama cinq mille mille francs yi ma génne woon moo ma dikkal lii lépp ma dugg si jumaa ja ñu war a yërëm nit di kot sama quatre mille francs ñaari deux mille maa laaj sëñ bi te maa ko laajaat tey te bu subaab moo ñëwee joxaat ko ñu sàccaat ma dinaa ko laaj sama xaalis moo ko jox loolu mille francs sama cinq mille du dem ndax sama deux sama quatre mille du dem sëñ bi moo ma ko jox ñàkk ñàkk jom moom di ñëw di ziar nga ñëw di jël ci sëñ bi ñëw di jox sëñ bi ngay jël sëñ bi ah jël ci sëñ mu guddi ma ne nag ma ne damay dem nalawi ji seen foofu ba fajam ma dem benn kii rek toog fa tëdd sama sama woo sama benn booy mu nekk nag rek kooku jëwriñ gajaga la tudd xam nga waa usine benn tali jëwriñ gajaga ma ñëw tëdd sonn nag ak sama cinq mille dugal sama cinq mille ci deuxième poosu sama tubéy ji teg ci jiin takk ba mu dëgg nga xam ne lii moom foog nga futti ma taatu neen pour mën a jël sama cinq mille yi tëdd quatre heures du matin ma war a yeewu cinq heures six heures ñibbi quatre heures du matin waa ji ñëw jóg leen jóg leen jóg leen ma ne la <laughs> jóg leen ngeen dem ca xay ga xaw ma lu wax fu matt yi di nekk xaw ma lan jóg leen ngeen dem ca xay ga tur yooyu daal turu olof yooyu turu olof yooyu jóg ngeen dem ca xay ga ngeen indi matt nga ca ca pénc ma ma nii kii ak samay nalaw ma ne nii kii kan la ñaa kii mooy jëwriñ gajaga jëwriñ gajaga bu benn tali ma ne ko sa waay man du ma taalibe sëñ bi de ah! ma ko wax non du ma taalibu sëñ bi ah da non non non fii taalibu sëñ bi lañ fi dajale eh, ma ne ko ah kon ngeen kon fii taalibu sëñ bi rek ngeen fi dajale quoi ah ku dul sëñ bi ku dul taalibu sëñ bi waru fee fanaan déedéet soo soit ngeen jóg dem ca man la jëwriñ ka jaga ngeen dem ca xay ga ngeen yanu ji kii yi lu mu tuddati matt yi ngeen yóbbu ko ca pénc ma ngeen teg ko foofu doonu ma ne ko yanu ma matt tey yanu ma matt suba yanu ma matt tey yanu ma matt suba ñëwuma fi pour yanu matt man doo sama jëwriñ yow sama jëwriñ jiite woo ma mooma ma mu ne waa kon jogal jogal kon faal nga xool noo def ma yan xay xayma xayma xayma moom la xayma sax xayma la xayma waa exactement dem leen ca xayma dem leen ca xayma mais waa jaa ngi sol garam boobu nag foog ne moo déggal gars yi dégg yaa jëwriñ jajaka mu naan nii di duufali leex dem leen ca xayma ngeen yanu matt ma ngeen yóbbu ko ca penc ma ngeen ko ma ne mekk ma ne mekk yéen ñii yam na yi ñii daal dañuy toog amuñu benn profession dañuy wëndaalu taxawaalu am ñetti jabar ak ñeenti jabar wëndaalu ñu ne leen jëwriñ ñu foog ni ñoo téegal gaay ndaga ñoo moom nit yi mais <laughs> yoon bi gars yi dañ lu leen neex lañ ciy def lu leen neex ma ne ko hey doo sama jëwriñ tey doo sama jëwriñ suba juróo ma moomoo ma damu ma xay ga yenu may matt yóbbuwuma ko pénc ko nay leer <laughs> waaw kon kon nga xool na nga def noonu laa génne 5 heures du matin 4 heures du matin jàpp 5 heures noonu laa génne yanu samay sac ñibbi dem jël sama kaar dem sama yoon kenn du ma rey des kenn kenn <laughs> kenn rey des ñu ñu ngi noonu ñoon ñii noonu lañ mel nag fenkat yi nekk ci ci yoonu Serigne Touba gi ci yoonu euh, ki lu mu tëdd ki fenkat yaa ngi fu ne yaa ngi ci kër yëpp kër diine yëpp fenkat yaa ngi fa nonchalant yaa ngi fa paresse yaa ngi fa tëdd muy dox yaa ngi fa sawkatu lal yaa ngi fa toog muy dox yaa nga fa lekkkatu xaalis yaa nga fa dóorkat yaa nga fa lépp nga fa <laughs> kër sëriñ fa lépp caga jaa nga fa lépp maa ko wax lépp nga fa waaw kon sëriñ maam mbor bu sëriñ maam eh, astafurlah mbaay caga bi biiralkat bi ca caaroy gaar maa ngi ñëw ci yow yow ak gànna neefere maa ngi ñëw ci yéen ak ak ak xaadim sàmb bii di doxaan coro fële ca ca pikin dafa indi oto bu noir car car bu noir maa ngi ñëw ci yow yéen ñëpp maa ngi ñëw ci yéen mbay peex moom wàcce woon naa ko fi waaw ma nga noonu maa ngi ñëw ci yéen <laughs> di ngeen di yem di ngeen yem benn place doo leen dara doo leen gat tus doo leen ko ah mu ne kii mu ne mu ne mu ne xaar mu ne gajaga la gajaga sa sœur sëy na sama benn waaw wax bu usine benn tali te sama benn copain sax moom fa yóbboon parce que moom laa woo après mu ne mi ngi foofu ma dem fa yee leen fajar ñu dem leen dem leen ca xayma yannu matt ma ma ne ma kii lan moo ko teree dem ci xayma moom kii moo ñu gën nday wala moo ñu gën bàyyi fekk ñuy nalaw nga yeele naan dem leen xayma yanu matt ma indi matt ba yóbbu ko ci pénc ma <laughs> yow sa waay buumu jaam gi dog na de buumu jaam gi dog na maam dagg na buumu jaam ja Victor Schultz abolir na l'esclavage bu la ñu fontoo bu la ñu fontoo bu leen ñu fontoo ñun suñu ndey juruñu ay doome xaj yoo xam ne ngeen jàpp leen def leen ay mbaam kuux takk leen ni saret duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba xaj yi dee ok donc démb wax naa leen réquisition téléphonique ah réquisition téléphonique ak Adji Sarr yi Ousmane Sonko képp ku ci takk aussi képp ku ci takk képp ku ci takk aussi dinañ la dinañ la ci Willy Pandé comme ni ñu ko waxee joor Diagne réquisition téléphonique joor Dior Diagne est que xam ne ni ñi def complot yi ba léegi ñuy continuer seen complot ba léegi ñuy ti ñuy xoolal ba léegi ñi ngi ñi ngi piloté complot bi barke alxuraan moo tax population bi taxaw leen fas leen fulla fas leen fayda fas leen seen jom taxaw leen ñu rayanteeg ñoom ba illaa yow mi diin ba illaa yow mi diin ah léegi booy xam sal booy mbay caam léegi jëwriñ la foofu jëwriñ mbay caam waaye xam sal bul yoolee mbay caam waaye waa mbay caam la ne sama cousin bi mbay caam mbay caam moom usine benn tal la dëkk léegi <laughs> moom dañ ko sufoon <laughs> jëwriñ gajagaa ne woon jëwriñam maa mbay caama doon nalaw